vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee koy ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice Ambos kon laa gamme vite fait moo leen di may kooru ju baax vitale ñépp xam Vitale qualité meew supérieure Vitale ngén yag andak mom mu yàgg leen a Vitale moo leen di may kooru waaju baax. Innovation. yeete leen bar baax la mu woote na fi ma jëm bu ñuy toppante bàyyil ma jiitu la kër laal ay sa buntu kër laal ay sa xam nga fa fekk ma fa maa ngi taxaw di la xaar. kër laal ay sa kër laal ay sa waaw kër la ñuy toppante mën na jëkkër jabar. waaw yaay sañ seeti nga de. waa gis nga ko de ci laa dëkk man. waa léegi ba fan nii. ah xanaa seet fu ma neex rek ma woore ji fa ma ndogoo ji fa. waaye yaay doo xaar laax bi léeg mu pare. ant mënoo maa dimbaleeg ay laax yow ant lan mooy sa problème may ma jàmm ci sarax bi ngeen nekkee ñun xam nañu lépp man maa bëggul laax tey bëgguma laax suba man damay génn wuti lu ma ndogoo waaw. sos yaa ngi fi saf sap lepp ngi fi man may borom dekk bi fuma dem ndok wa loolu la yalla dogal jeex tak tàkk waaw léegi nag vitale bi nak ma ci dencal ñaari bitel buma ma ba nga xamni wërna ba son ma ñëw ndar ko na loolu mom bëgg na nga xamé lu neex daa leen abaax ay dem yow ay ba ay kase ay boobu kase salaamaaleykum fleur de mon cœur racine de ma vie mon supame mon kénkéliba oh la la la ni nga def kontaan naa ci yow macha allah. man dama laa mere. ma def. papa war naa yónnee samay photo vidéo aimé woo commentaire waaw maa ngi defal lu garaaw la sax yow bi ma envoyé photo yi aimé naa def naa kër def naa loof xoolal def naa bii def bii def naa yëpp mais daa tombé sama connexion jeex. yow newoon naa la man bu ma la yónnee yooyu da nga war a di aimé wala ngay commentaire xam man dama laa bëgg. loolu yooyu di ko bàyyi xel parce que yooyu dama koy bàyyi xel daal man. de sóoraale koor gi. bi li dara nekku si. ah kay daraa nga ci weeru koor la damaa faral nee naa la da war a jàpp ne man sa jabar laa. dëgg la. donc da war a non si li bu tombé rek Noël. war na tombé am problème léegi foo jëm. xam nga naraw ma fi woon fekk maa ngi doon dem marché nii ma. voilà ah surprise nar naa sama mag bu ma bokkoon ndey ak di sa goro di sa mulai gana si tay tay fii lay papa yow sama goro wa dundo ko si mo sax wo mo préparer mo c'est pas la peine de préparer mag la fal ko laax comme laax ba ma toggal amul beñ laax lo beug yow mo do mo baye ma dem préparer def sama michu yu bax ñu taajal ko dressel ko foofu wàcc ñun suñu famille ñoo bëggul volaille maanaam kanaar naat koppin cokkeer ramato petax ñun yooyu ñun ay lañ Ah, ok. wax rek. ok léegi mu ñëw ñu ànd marché dugg bu ngeen marché. kii dafa guddal man tamit dugg ci marché bi Sì, s'il te plaît s'il te plaît. loolu mooy D'accordo. nga. d'accord safar la. dem. dem. loxo bi pour. loxo bi yow tamit. mag laa dama nekk samay nawle. te dañoo nekk ci weeru koor di dund. da nga bëgg ma mer. nañ toppante rek comme la. da de Kanaxar. da bëgg ma mer wala bëggoo ma loxo bi. yaa ngi tegal fii daan naa suba am jot.

Chérie, mon âme cherche pour fuir. Ah oui, ah oui. Ah oui. Moi, mon père, c'est parti de la famille raisin. Ma mère, famille pomme. Dis-moi. Nous sommes des cocktails. Des cocktails, mec. Ah oui. Mais bah, il y en a beaucoup. Ah, mais c'est un mix à la, sûrement c'est là. Oh, oh, oh là là là là. Ma. Oh, ah, tout, tout, tout, tout. Lem. c'est les tubaab ki di miel moi je lem. waa xam dama laa bëgg da ngaa dégg ay lem. dëgg la ci koor lañ nekk nag. dégg ñu commenté. waaw dégg ko dilué. waaw dégg ko dilué. Ah. génne lii nga teg noonu. madame. oui. moom la si gën bëgg nag gisoo moom la njëkk a teg. a bëgg ak miel bi. miel. moom la Ah oui. Oui, standardma. Ma famille, raisin. Raisin. Torson e babette. Est-ce que nous avons sumi? Les Ndjobin. Les Ndjobin. Oui. Ndjobin Ça, c'est pour nettoyer les tables. Les tables. Si, tu masses, lá. Se tu masses là, si le lard tombe ici, tes parents, ça te ah, fait poche. Oui. Ah, Ah! de luxe. teel. waaw doo ko laal sax noo bëgg fii. non instant yi mais tàndarma bi bëggoo ko xanaa. waaw indil boobu kay. waaw suukar koor. suukar koor foofu day wàcc. pour suukar koor. monsieur c'est trente cinq mille. trente cinq mille oui. ki mooy fay sama borom kër. Ah, mooy fay. kaw naa ko defal transfert damay damay gunge rek de ma ne ko damay gunge rek de li ma ko fay xaw fu ma jëm trente cinq mille kooru waaju baax bi allah man ndogu lii laa ci xam lekk ba suur naan tay man bañ dalé wor bu nëgal si. Ah. ndogu lu neex ndogu da ngay ndogu ci nek sa kaw di wej wej wej wej tay dama lek bu yegni lek na yow mom da nga meuna yak dem yak dem der sa tàntaate moo mo, man ma nga ni senegal poñe ko rap motax tax la man buma joggé nga xamni lepp deug la. Mm, roy du nuro pire. Hmm? salam ñor na. Mm-hmm. Nana na ñun famille famille laa xaw rok lañ roog roog mën ko ci waaw lu bàyyi naka daan bay bàyyi bay dugub rek la ko bàyyi bay ah Aïcha merci beaucoup Lena yaa ngi Lena sama mag la li la waxoon lépp ci moom kii bañaluma dara moo ma gisal boppam ma xeyna nak gis na ci man kilif def ak ful ak fayda ndax man ñàkkuma fayda mo it ñak fayda waaw ku baax ngi nii bañaloo ma dara ci àdduna leena mënuma la fay yalla yalla ya, fay ya. ha man damaa far sax aj sama yaa tek sama kuddu man kat dama yew ha jox ma kaat seeju bi lii xoolul borom milliardaire xol borom kaat kaat xol borom millionnaire millionnaire xol xoolul ñu jóge Dubaay xooloo kenn lu dul sama rakk ji mel ni ma caat nga ne moom nga bëgg ah lii da jafe na jigéen ju mel nii day ku ko am war koo téye kii de sëye ko tax a jóg maman doguma la yàlla bu la dee dog sax waaye gis nga alal maa alal bu dara fii lañ koy fekk fii lañ ko fekk te bu ñu deewee tamit fii lañ koy bàyyi dëgg la te li ma la wax ci papa mii la rek papa maa ko gis bëggal ko sama bopp hmm? te daw ma ci dara pour confirmer la loolu bëgg naa sax mu ñaan si balaa ñuy wari nga ne te bu dee alal ji moo ko jaaxal am naa ko te mën naa ko jox ba mu doy ah moi je rêve ou bien j'ai des cauchemars. Ah, te bu dee kër am naa ko macha allah. mën naa ko ko jox. ay client boo dul delloo ci doo ko yakk léegi nii de. kii de bu yeboo nga def différence. Ah, xale bu baax nga de ndax boo lu fekkoon ne doo xale bu baax yaa ngi xool leneen ak leneen waaye sama rakk ji nga xam ne dóoriwut faywut àtt àttuwut xeex àndut ak waa àdduna waa laaxira raw ko saxaar gi dem ba ko fi ñu koy baraawoo ah nga ne moom nga bëgg. kii de boo waxut ak moom dama lay bàyyi àdduna ak àllaaxira yaa ngi door a dal nag sa liggéeyu ndey la walla man moom laax bi li tax sax di ko lekk vitale booboo tax ma di ko ñam. Ah. Ah. bu seddee neex bu tàngee neex. waaye waxuma la loolu lépp Ibou Diagne vitale yi man na rëkkande ku lako jox. sant bii moom bàyyi ko man bay ma kaawoo ko rek ni nii. moy mooy te yama gëna gën ay yax man dama dem mag jox mako ko. tant man damay nàmp ba léegi. kontaan na maa kontaan. je suis tour de émotion. je suis touré touché touché de bonheur. je suis très touché au cœur. en tout cas le ma la mën moy xamal lebal nga ma ndox sét na la fay glace. Je t'aime au fond de mon comme le poisson au milieu de la mer. maa la bëgg. maa la bëgg ne genre ma bëggee fi tam. Je t'aime. Je t'aime nee naan xel puusara gone dina ko for mag dina ko for waaye gone gi de xam naa ne danga koo yar te ci kër gu mag la jógee. wala lépp. koy mënatul. Furwidaagini Zibaagini Laax baagi nii ah man non mënu ma fee xaar ndox mi sax damay ñibbi damaa suur lii. Vitale moom bébé Vitale Vitale sama xarit Vitale. Vitale moom bébé Vitale. Vitale moom bébé Vitale. Vitale sama xarit Vitale. Vitale sama lonko ko koppati ba. xaaral ma enregistré lii lii waroon nag fi fekk sama ndijaay de. xaaral ma ko. daal ngeen ci de. naa ci de xale baax. daal ngeen ci de. antaay woote antaay. bu ko fi wuyu de. Ah. ku baax yow ñëw bu ko liste noire wala nga bloqué ko. Vitale sama xarit Vitale. Vitale sama xarit Vitale mon ami Vitale. Vitale mon copain Vitale. Vitale mon amour Vitale. Vitale mon amour Vitale. Vitale mon bébé Vitale. Ah Vitale mon bébé. Mon eh, bébé ah ouais sama. Ah. kii de lu mu ci naameeg ndox moo fexe ba yàqal sa bopp. mais hmm. koor bii nga nekk lu Eh. maman. waaw. pas sàcc li. ay waay ku la bàyyi. <laughs> ay waay jërëjëf waay. ko trop. waaw. cent mille francs kese la. saa. crédit la may. la. crédit la la may. <laughs> <laughs> yii béppeeku naa. je parle nulle part ailleurs dama rek indi ma sama yére fii àjjanaa nii. laa ilaaha illallaah. bon xam nga daa xorom moom. àddina ko laa ñëw. wala ko moom daa xam. nooy def nii. Eh, après dinaa la woo. dinaa la woo dinaa dikkaat xam naa yow. waaw d'accord. vite fait ñu ràññee ko ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee koy ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pat dentifrice am boos kon laa gamme vite fait. moo leen doon may kooru ju baax. vitale ñëpp xam.